RFM euh, matin sunu gan euh, wal Waly Diodio Ndiaye salaamaaleykum Waly Wa maaleykum salam, Georges. yow yaa ngi bokkee ci société civile bi nekk membre ci collectif des organisations de la société civile pour les élections ma fas yéene la ak Alaaji Ndiogu Diène ci euh, waxtan wi ñu wax ci dialogue politique bi dialogue politique bi nga xamantene amna liñ ci nemeeku fan yee weesu dama né sax dembu xamu barki dembu moy validation ci plénière bi. Mm. plénière comité euh, commission dialogue politique Bobé, mm. terme de référence yi jëm ci walu ni ñuy sayto processus électoral bi ak lepp lu jëm ci walu audit mm-hmm. lu ne ci biir waaw jërëjëf Georges euh, maa ngi nuyu Ndiogou euh, di leen remercier si invitation bi pour mm-hmm. me permettre aussi di ko yaakaar leeral askan wi parce que xam nga orientation bi ñu jël si dialogue politique bi mooy maanaam communiquer étape bu ñu topp euh, bu ñu toll ku ci mëna wax wax ci léralal askan wi pour ñëpp am ci une compréhension commune donc euh, boo euh man du wax terme de référence en mhm. fait euh, dañu finalement dañu japp né ci tënk ne dañ koy def ben document bo xamné euh daf ñuy permettre ñu mun ko utiliser pour mëna a saytu évaluer processus électoral bi parce que bo gisee bu baax amoon na fi débat diggante opposition à majorité ku à am sa position ce processus électoral depuis refonte partielle qui euh, a commencé en octobre 2016 euh, refonte bi défendu donc carte carte d'identité yu nous ñu cumuler carte d'électeur carte d'identité et ay ciowlu ci amone naka lañ ko ko distribuer sénégalais yi amone sen carte ñen ñi amuñu ñu voté won élection législative 2017 ensuite nous euh, y aussi le processus électoral électoralu 2019 l'élection présidentielle Nous avons inscrit nous avons jotuñu une carte etc. Nous avons fait ñu carte euh, carte électorale donc pour gatal pour préciser résumer li ñu bëgg wax évaluation bi dañ ci déggo ñu né légui daf ñuy permettre bu ñu processus électoral bi depuis jamono joju moy mmh. manam octobre 2016 ba proclamation résultat aux élection présidentielle 2019 mmh. mmh. dinañu pay permettre ñu saytu lépp li xewoon ci mbir mi après mun ci indi ay safara lan mo xewon ci mbir bi ben bu duma demagum ci audit bi mais ci évaluation bi lay wax ben setlu won nañ ne dañu defoon refonte partielle manam ñu demander sénégalais yi ñoom ñu am ay carte d'identité yu bees ci recto bi verso bi nekk carte lecteur muy mm. benn ñaareel bi il faut ñu saytu naka lañ ko defee mooy maanaam naka la sénégalais inscrire naka la ñu produire carte yi est-ce que ñëpp jot nañ ci est-ce que répartition spatiale bi amul ñoo xam ne dañ leen ci beddi ah parce que bëri woon na coow boo fàttali ko baax élection législative yi parce que à un moment donné nee na ñuy jeunes yu bëri jotu euh, surtout à Dakar jotuñu woon seen carte yooyu yëpp il faut ñu saytu ko naka la ñu tëralee carte électorale bi mooy maanaam bureau de vote yi yooyu yëpp dinañ ko càmbar naka euh, commission administrative yi niñ ko tege woon est-ce que opposition yi participer nañ ci est-ce que ça a été inclusif yëpp c'est-à-dire du ñu bàyyi dara mais mais loolu day laaj temps bu bëree bëri temps lay jël te xam nañ ne mm-hmm. même euh, dialogue national bi mm-hmm. ñetti weer neen appel ngir ñu joxe seen rapport est-ce que li ngeen bëgg a def yëpp évaluation beeg audit beeg yëpp yëpp yëpp liggéey mm-hmm. dëgg-dëgg si weer yi ñetti weer daa ngeen ko mën a def bàyyil ma yeggali audit bi aussi il faut ñu càmbar fichier bi donc ñaar yooyu la ñu boole ñu déggoo ci ne il faut ñu def ko pour mun a am benn consensus ñu mun ko def pour nit yi mun ci déggoo maintenant par rapport à durée bi loolu waxtaan nañ ci biir waxtaan nañ ci biir tey boo xoolee document bi dañu ne au plus tard nan nañ ko mën a def ci 90 jours wala 120 jours mais 90 jours yi jàpp nañ ne sax bu fekkee par exemple jël nañu disposition yëpp yu ci war président Famara Sagna euh, jox nañ ko document bi jox nañ ko lettre bi jox nañ ko document bi maintenant moom bu ko diligenté ba nga xam ne mettre nañ ko en œuvre ak partenaires yi yi jàppale pour ñu mun a évaluer ak auditer mbir mi bu ñu recruter ay ay consultants mmh. experts internationaux yoo xam ne am nañu seen xam-xam màcc na ci mbir bi xam nga bu ñu fàtte ne benn mbir am na benn fond documentaire. Mmh. man loolu dama koy def ci bitim réew. parce que xam naa naka lañ koy defee am na fond documentaire boo xam ne dafay exister ñooñu experts yooyu bu ñu ñëwee bu ñu defee liggéey dinañ def revue documentaire dinañ dem ci terrain bi saytu euh, interviewer ay nit def ay comparaison et cetera. ci yoon normalement bu fekkee liggéey bi sérieux na nan nañ ko mun a def te aussi day dafay am benn comité technique boo xam ne day taxaw àndax ñoom di leen xool di leen saytu di redresser bu fekkee dafa am loo xam ne ay orientation yoo xam ne dañ ko bàyyi maintenant par rapport à durée bi loolu yëpp dañ ciy waxtaan. mais justement durée boobu peut être di en 3 mois daal. 45 jours ba 3 mois. nan nañ ko 90 jours 120 jours. ñele c'est juste 3 mois ñu ngi wax sax lu jëm ci seen walu liggéey fin mi mars peut être man nañu mëna sax joxe yi seen i documents. Mhm. kon délai bu euh, comité de pilotage bi tënku leen délai boobu du ñu dans la mesure où xam nga xam nga Sénégal il faut que affaire boobu ñu régler ko mhm. définitivement. moy manam mën nañu dem bu liggéeyu comité de pilotage bi jéxé mën mhm. nañ jël ay dispositions particulières pour prolonger liggéey bi par exemple de un mois. parce que aujourd'hui par exemple tëralaat nañu au niveau du dialogue politique ben calendrier bu bees bo xamné daf ñuy permettre ñu gëna ci baral mbir mi mooy maanaam yeneen point de discussion yoo xam ne abordé wuñu ko ñu abordé ko dem ci parce que déjà ñëpp am nañ ci mun naa jàpp ne tey presque ñu ngi si cinquante troisième séance euh, tey la ñuy def cinquante quatrième mm-hmm. séance bi mm-hmm. donc tey mun nañ jàpp ne avancé yi dina gaaw te d'ici kii euh, peut-être fin mars dinañ mun a pare travaux yëpp maintenant ñaari mbir yi gën a am solo mooy maanaam évaluation bi ak audit bi loolu mun nañ jël ay ay dispositions particulières au plan légal pour mun a prolonger par exemple euh, comité bi mu mun a accompagner affaire bi ba mu ba ci cappaandoo gi parce que bu ñu fàtte ne. après il faut ñu attaqué bu boobaa comité de pilotage nu muy def ak yéen euh, seen i conclusion ak yooyu ndax ñoom seen rapport fa ñu président. Hmm. ne commission politique bi lii la liggéey su boobaa nu ñuy def ak yéen. c'est-à-dire bu boobaa comité de pilotage bi parce que ba légui ah par exemple tay bu fekkee seen commission yi pare nañ liggéey ba jox ko comité de pilotage am na hypothèse yu bëri ñu mun a teg mooy benn un décret prolongeant l'existence du comité de pilotage par exemple sur un mois loolu hypothèse la ñaareel bi seen liggéey bu jeexee mu yem fa mu jeex ensuite maintenant ñu jël une dis euh, benn benn benn arrêté ministériel par exemple wala benn décret présidentiel euh, par exemple euh, le cadre technique qui sera mis en place pour suivre l'évaluation de nous nous avons ñu un décret spécial pour que nous day faire a travaux parce que bu vous après loolu nous buñ ci attaquer les travaux de la revue du code électoral pour monter des élections locales. locale ci li nga xamantene ne moo di audit fichier électoral bi xam mm. nañ ne audité woon nañ ko fi ay jamono mm. ba audit boobu am résultat yi mu joxe woon waa union européenne sax yaakaar naa ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo leen jàppale woon ci wàllu woowu est-ce que ci bii dañu tenir compte ci audit boobu ba léegi wala euh, dañuy reprendre à zéro xam nga bële passé biñ koy audité euh, au plan politique. parce que gis nañ fi ay euh, mm-hmm. kàngam ci wàllu politique sax yi nga xamante ne. Mm-hmm. bañoon nañ yooyu résultat bokk ci maître Abdoulaye par exemple waaw loolu laa lay hum. tontu dama ne bële passé bi ñuy auditer fichier bi en fait dafa dese opposition bi dafa boycotté woon les travaux. Hum hum. donc après ñoom dañu jàpp fi ñu jàpp ne fekkewuñu ko xamuñu li nekk ci biir. donc loolu moo taxoon ñu diingat ko tant au plan de la forme que contenu bi maintenant tey yàlla def na ñëpp ñëw nañu buñ ko auditer dina gën a inclusif. Euh, ñoom ñëpp dañuy toog teew saytu ko parce que xam nga euh, l'importance du fichier électoral mooy maanaam c'est la confiance c'est-à-dire élection bu amul confiance day am day sooke toujours mais bu fekkee par exemple tey audité nañ fichier bi ñu ne baax na wala baaxul dañuy redresser lii et cetera ba ñëpp si ba ñu arrivé à un résultat final boo xam ne day consensuel au plan politique lool mo gën fouf que par exemple même bu fekkee liñu audité woon mais bu une partie de l'opposition seen gis-gis dañ né fichier bi baxul day poser problème donc motax nous, euh, comme ñun Sénégal dañu sommes en amont si suñu fichier tant que réglé wuñu nous avons toujours ñuy des débat par exemple inscription massive euh, sur euh, les les trucs d'état civil loolu bés bu ñu tant que réglé wuñu ko dañuy am toujours ay problème mu fichier tey Sénégal dafa jot aujourd'hui les l' état civil ñu xool naka la ñuy tegee ay dispositifs yoo xam ne par exemple au niveau des centres des postes de santé ak hôpitaux yi nga xam ne day am un dispositif boo xam ne dañ koy raccorder avec les tribunaux avec les états euh, les mairies nga xam ne xale bu juddu ñu mun ko déclarer loolu tey enjeu crucial bo xamné day permettre ñu mëna maîtriser cette population pour mëna éviter par exemple ay sénégalais yo xamné duñu am euh duñu am euh, référence. Mm-hmm. waaw moy manam juddu do am kayitu juddu moy en fait tu es un enfant fantôme. Mm-hmm loolu mooy enjeu boo xam ne état pouvoir public yi il faut ñu travailler si sérieusement avec force vive de la nation pour mun a régler en avant l'état civil en amont état civil et définitivement la question du fichier électoral. mais yéen commission politique bi euh, li leen di gën a xaare mooy ngeen wax nit ñi kañ la élection locale di am parce que d' accord ngeen ñëpp d' accord nañ ci euh, mm-hmm. nguur gi jël euh, dëkk projet de loi dàq ko mais ba léegi kenn xamul parce que ministre de l'intérieur li mu wax mooy au mm-hmm. plus tard mars 2020. mille vingt. ni ko mars 2021 2021 fii ak at mais il faut que ñu xam kañ lay doon su ko defee parce que wàccaa yeeg yooyu dafa am lu mu laaj est-ce que loolu euh, du luy sooxee seen liggéey xam nga xam nga foofu yaa ngi touché benn point bu important naa la révéler benn mbir actuellement jamono jiñ toll bu fekkoon nekkuñu ci année électorale mooy maanaam bu fekkoon amul élection en 2020 dañ naroon def révision ordinaire période de révision ordinaire bi dañ ko naroon ubbi depuis mois de février ubbiwuñu ko ba tey mm-hmm donc aujourd'hui par exemple nous ne sommes au niveau de la société civile nous interpeller état bi il faut que nous fixer au moins dans la durée avant fin 2020 par exemple je donne une bonne hypothèse décembre aujourd'hui c'est parfaitement possible de tenir les élections locales au mois de décembre et puis période de révision exceptionnelle par exemple ou bien janvier 2021 et puis période de révision exceptionnelle par exemple euh, d'ici trois mois ou quatre mois le temps de terminer du fichier bi nous nous interpellons le temps l'État pour le demander officiellement parce que actuellement on est en train de ne pas respecter les dispositions de la loi mhm. parce que normalement bu fekkoon une année électorale dès le mois de février, début février, nous avons une période de révision ordinaire. Donc le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, euh, dans un acte en concertation avec le président de la République, nous fixer définitivement euh, la date des élections, date butoir, horizon clairement défini. parce que commission politique dialogue la affaire pour moi, man ni c'est un faux débat mm. c'est un faux débat dans la mesure où par exemple il est parfaitement possible aujourd'hui de euh, fixer clairement un, calendrier En politique par exemple je lance un appel à l'opposition et la majorité présidentielle que nous nous définitivement sur cette question Nous arrêter de wax il faut que nous auditer il faut que évaluer Nous avons trois mois 90 jours si nous euh, décompte à partir du 1er mars boo les 90 jours Nous nga fait tous les travaux de l'audit et de l'évaluation du processus électoral à partir de ce moment là vous faites un horizon clair durant le mois de février nous def l'appel d'offres et tout ça on recrute les experts internationaux dès le 1er mars nous avons débuté travail mars avril mai 31 mai avons terminé juin nous def la validation de ces affaires là en même temps concomitamment nous def les travaux de la revue du code électoral et à partir de par exemple mois de juillet nous def les révisions exceptionnelles Nous ñu révision exceptionnelles, mais cadrage bi mën nañu déjà am temps par exemple déjà juillet on peut même avoir l'horizon du mois de décembre pour tenir les élections locales je pense que vraiment et nous insistons là-dessus pour demander vraiment à l'autorité ñu bàyyi tendefal bi mairie fu mu que nous mandat la ils sont en train d'exercer pratiquement ben pour moi à mon sens c'est presque à la marge de la légalité c'est presque illégal parce que sénégalais les détenteurs du pouvoir ñom ñoy à des maires pour un mandat de 5 ans dafa doy c'est-à-dire vraiment di même mars 2021 dafa sori xam nañ euh, wala bok cette moy commission politique bi yene njaflax wala yéen a gën a gaaw comité de pilotage bi ndax moom xaar ko lu yàgg commencé wul woon liggéey mm-hmm. mais document wu TDR est-ce que jox ngeen ko ki nga xamante ne egg nañ ko déjà président comité de pilotage bi Famar Ibrahima Sagna loolu la ñuy loolu laa doon wax sànq c'est-à-dire ah. terminé nañ ko keroog bi ñu ko validé mm-hmm. en plénière mardi ci la defaraale lettre bi koy tënk jébbal ko président Famara Ibrahima Sagna légui mom mo koy auprès du président de la République pour ñu jël une disposition avec les partenaires au développement pour mëna naka lancer euh, l'appel à candidature pour recruter déjà on peut dire que par exemple y a des partenaires qui ont manifesté comme Union européenne pour appuyer l'audit comme l'USAID pour appuyer l'audit et d'autres pour euh, l'évaluation donc nous, manifesté wu manifesté, donc mun nañu accompagner le processus et déjà ils sont prêts donc il y a rien actuellement diligence rek la entre le président du comité de pilotage parce que nous dara du teg seen tank seen loxo donc loolu jébal nañ ko donc nous mu nekk avec le si président Famara Ibrahima Sanya avec le président Macky Sall qui on espère voyager. dafa mm-hmm. voilà na donc xam vraiment cette affaire là mais na tukki dafa da wax président lui, parce que au Sénégal uh-huh. il y a beaucoup d'interpellations en GI uh-huh. et nous davantage uh-huh. justement wax ci hmm. euh, rapport coup de comptes hmm. seen bi gis nañ

muy parce que Sénégal dañu avons ay commission c'est-à-dire président bi ñu koy élire en 2012 dafa waxoon gestion sobre et vertueuse tey même moi je m'interroge sur certains points parce que jël euh, renouveler na ñu mandat prêté prêter na servant mais à ce que je sache ba léegi une déclaration de patrimoine moi maanaam même ni ko ni ko of ministre qui a sen déclaration de patrimoine ak ñeneen autorité. alors que loolu c'est une nécessité de transparence c'est-à-dire tey nan na def déclaration de patrimoine ñu xool président bi muy jël en 2012 fu mu toll woon ci xayma ci am-amu boppam ak 2019 fan la ci toll loolu c'est important parce que c'est la loi muy benn dafa nar def déclaration de patrimoine ak gouvernement bi ak ñi ñi mu àndal de ñaareel ba mooy maanaam Cours des comptes donc on renforcer on doit il y a tellement de compétences il y a tellement d'étudiants de doctorants de docteurs mm-hmm. qui ont des compétences Nous, nous, avons fait un recrutement massif renforcer cours des comptes jox leen avec des moyens parce que nous on la magistrats on avons yor qui qui jotuñu def depuis pratiquement nous 2015 pour moi, c'est inacceptable de traîner des trucs comme ça parce qu'aujourd'hui on a besoin on est dans l'ère de la transparence et de la mmh. bonne gouvernance on doit renforcer toutes les institutions de contrôle de l'État C'est une recommandation de manière contradictoire aussi respecter aussi tout ñuy monde. ñu réponses de manière très objective maintenant fait que président day et et mesures mu mesures soxlawul et commission parce que Sénégal on a l'habitude tout le temps de mettre en place des commissions on xam commission yi bu ko mettre en place souvent fu muy mhm. donc vraiment nan nañu a affaire les recommandations qui ont été édictées par la Cour des comptes ñu doxal ko au, au final lan la organe de contrôle yoy di jëriñ commission fi bu beneen euh, organe. pour man organe defé ab rapport. Mhm. yenn saa ñu dégg fi premier ministre wala. Euh, mhm. euh, njiitu réew mi ci bopam sax di émettre ay doute. Mhm. di ngagn seen rapport au final est-ce que lan lay jëriñ. que organe de contrôle amna fi njëriñ bu important. c'est-à-dire le problème le débat c'est pas organe de contrôle yi ban njëriñ lañ fi am am nañ fi njëriñ le le débat de fond moy li ñuy liggéey. bu ko saytoo ba pare ba joxe seen conclusion kaka nar a doxal daf ko nar a. doxal c'est-à-dire aujourd'hui war a dañu nar a même sur le fond, jël ay euh, de la loi yu bees. yoo xam ne day tënk président. ci décision yi euh, organe de contrôle yi di jël parce que organe de contrôle yi boo xoolee seen biir am nañu compétence yi war am nañu xam à l'international da rencontrer tout le temps nos nos magistrats etc. Ils sont dans le cadre de coopération entre pays d'autres organes de contrôle Nous, ont des Nous, mais le problème de fond c'est... Il y a le pouvoir exécutif ñom ñoo nara def seen liggéey en rapport avec le pouvoir judiciaire. loolu kay warul yam sax organe de contrôle ci walu justice yep la. voilà exactement euh, nit exactement parce que pour man aujourd'hui débat de fond bi il faut interpeller les politiques. Mhm. parce que moi je me pose une question mhm. président Macky Sall depuis que mu toogee ba léegi interpeller euh, cité nañu ay ay partisans musu ci inquiété ken alors que. Ablaye président Ablaye Wade ak liñ ko mën tirer ko a attaqué Modibo il les avait sanctionnés des organisations de la société civile pour les El euh, RFM matin ci RFM ak euh, euh, TFM